li indi loolu yëpp nag gis nga tubaab bi ni ñu ëppee xel ñoom Macky Sall ñi sax du jàmm man nag ëpp ñu ma xel ma wax leen ko léegi tubaab bi dañuy ñëw ne la dama lay lebal surtout nag jamono ju boo bu ñu nee am nga pétrole am nga zircon am nga ñu ñun dama lay lebal bor boru Sénégal fi mu toll ni mara d'Italie mais suñ doon dañ lay lebal rek bàyyi la tubaab bi xam nañ ni suñ la joxee xaalis nga def ko ci sa mbay baaxul ci ñoom parce que da jox indépendance suñ la joxee xaalis nga def ko ci sa napp wala ci sa cam wala sa éducation pour say say nga say say doom ëllëg am seen niveau wala ñu raw leen loolu baaxul ci yow mais su ñu joxee xaalis dañu xam nga loo ciy def stade nga ciy tabax train nga ciy tabax samay entreprise nga koy jox parce que amoo entreprise bu ko mën a def soo tabaxee sa stade ba pare tëj ko ah, war koo entretenir huit cent million par année mm-hmm. te boobu yow amoo mbay amoo càmm amoo dara yaa ngi dépendre ci tubaab bi ilaa yow mi diin donc tey jii. débat quoi donc loolu ñëpp comprendre. c'est la dette vidée alors. Euh, léegi ma daaneel. daaneel ci foofu laay daaneele mhm. donc moom jàpp na ni. Coupe d'Afrique am na. ma ngay inauguré ñett wala ñeenti mbir yoo xam ne amul benn impact ci dundu Sénégalais mu ne kon ñetteel bi mooy naa songaat Sonko parce que moom mooy sama problème principal. du moom mooy opposant bu ëpp gëdd de hmm. waaye comme fexe nga ba tey Khalifa sal mënul présenté wu Karim Wade mënul présenté waaye usman soo ko mën na présenté wu te ma ngay présenté wu di gagné malgré tout kon naa songaat mbiram mu dajeek nag ñi nga xam ne ñoo ko ngemb ñi mu doon seen préfet muy tubaab yi ñoom it Ousmane Sonko tiital na leen parce que la ma def Casamance lu tuuti la waaye lu symbolique la daa di nag law ci Afrique yépp mu posé débat moo tax maa ngi ñaan ba ci Barthélémy Dias maa ngi koy ñaan ndakaaru gi waratul am ay réewu Pinet-Laprade Pradac ay euh, euh, général de Gaulle ak ñàkk fayda yooyu <laughs> na ko dindi ñu tuddee ko suñuy maam mhm. tuddee ko africain yoo xam ne seen seen jàmbarte justifié na loolu te tubaab naa la wax lenn nag mhm. ku koy tenir tête la respecté li tax ñu respecté Kagame li tax tey ñu respecté Algérie waaye boo nekkee fii nekk esclave de maison tubaab du la musa a respecté moo tax respecté wuñu Macky Sall respecté ñu suñuy président kon moom bi mu yëkkati yooyu dafa tombé tubaab bi moom it mi ngi xool fan lay jaare pour Ousmane Sonko mii nga xam ne danger la te discours am mi ngi dugg ci nopp ndaw ñi naka laay def ba arrêté ko moo tax ñu yónni seeni journaux hmm. ci li gën a fës kenn musul gis monde diplomatique def une des faits divers ba pare ñu sponsoriser ko mooy xaalis bu bëri lañ leen jox Jeune Afrique def la même chose ak keneen ak keneen man dama musaam sama fulla ci ñooñu conférence de presse bu ma taxaw Jeune Afrique nekk fa wala monde diplomatique wala nu mu tudd RFI soit ñoom dinañu génn wala man duma fa bokk parce que man tubaab ëpp ma fulla décision boobu nga jël fi mu toll man mii moom laa jël te tayit li ñuy li ñuy fexe mais loolu ça va à l'encontre de la liberté de presse quand même. déet déet mënoo nekk ay homme politique ne su ma defee conférence de presse le toog RFI du toog. Euh, de la même manière toog Walfadjri warul toog. xam nga man. oui presse problème yu bëri na ci yaa ma ko gën a xam. waaye mun naa nangul presse sénégalaise loolu. parce que c'est nous dans nous. Mhm. waaye nit bu jógee fële ci àll ba ñu mission commandée ñëw du ma ko ko nangul. Mhm. tayit liberté de la presse. Mhm. man tam dama am sama liberté. am naa sañ-sañ ni fii du ma fi waxe mais sama liberté ndax ragaloo si civil aussi. ci hmm. dëkk bi nga nekk fa nga yeewoo ñu xatal la fa ba nga xam ne presse bi nga xamante mooy sa presse nationale sax luñ la jox kàddu. Hmm. yow nga sukkandiku nañ ko gisee yeneen dëkk bëgg sukkandiku ci yooyu pour opinion internationale yëpp li nga wax hmm. gis nga presse am na solo trop te am na doole waaye ñun dépendre ñu si presse bi ma commencé politique ba léegi dama ne presse damay am ak moom relation de respect mutuel même fii Sénégal mm-hmm. organe de presse moo joxul respect du ma fa dugg du ma fa wax te du ma tee egg fi mu war a egg su ko yàlla tuddee parce que ku yaakaar ni am nga pouvoir bu rëy parce que yaa ngi toog di wax Sénégalais yi la seetaan chaque jour nga xëy wax ci Ousmane Sonko te teewul Ousmane ko ngi dem su doon presse mooy rey nit présidentiel lan lañ fi deful Tullow Oil moo koy financé rapport ak euh, euh, euh, xam nga lan état islamique mm-hmm. diw diw ay jour journaux ñoo ko bind def ko seen une man dama gëm ni gis nga fi dañu nekk dans un monde ouvert su dul presse di réseaux sociaux di leneen ak leneen mais dama wax ni dafa am loo xam ne bu ko nit defee dafa war a présenter ses excuses parce que li ñu def faute professionnelle grave la te ku ma respecté wul du la respecté mm-hmm. léegi léegi nag mm-hmm. ma dellu ci si stratégie Macky dama bëgg Sénégal yëpp xam lan mooy stratégie Macky jàpp na ni fi mu ne nii il a vent en poupe te mu ngay nax boppam dara changé wu fi sénégalais bi demoon inauguré stade bi même sénégalais bi mooy moo taxawoon ci kanamam mars deux mille mooy taxawaat ci kanamam tey jii sénégalais boobu bi génnoon parce que gagné nañu sa fierté nationale la génne mais génnul parce que Macky Sall la ñaar yooyu bu ko kenn confondre le même sénégalais bu dee amuloon liggéey ba tey amul liggéey bu dee mënul faju ba tey mënul faju Sénégal dara soppiwu ko fi dara soppi soppi ko fi moo tax ma ne mhm. ci stratégie boobu dossier bi benn responsable moo ci am mooy la justice sénégalaise la justice sénégalaise est complice du complot ki se passe actuellement parce que mënuñu ne dossier bi mi ngi ci table juge juge ne kenn bu mu ci wax parce que instruction la bés bu ne nit génn ci wax fu ko neex ay médias étrangers sax ñeme dugg Sénégal wax ci lu leen neex dem soo ko defoon France yow mii tey ñu créé la problème ana justice ci jamono boobu. ndax yow pare nga léegi pour wuy justice boobu. man wuy naa justice nday Marème. mais procès bi ñuy xaar na déglu ma ma wax bu ñu bu ñu bu ñu question yi ci benn façon bi man wuy naa justice li ma waxoon dafa leer dossier bi gisuma juge bu ma ciy tëj kaso man Ousmane Sonko. ah oui ilaa yow mi diin gisuma ko loolu mooy benn bi ñaareel bi ñoom dañoo defoon seen complot complot ba ça devait se passer au mois de février deux mille vingt et un bi ñu ratee février deux mille vingt et la ñu am problème ak dossier bi bi ñu ratee échoué jàpp Ousmane Sonko ne ko ñu ci kaso bi la ñu xam ni dossier bi perte nañ ko. parce que loolu moo woon seen stratégie moo tax Serigne basiru Gueye nga xam ne lu yàqu ci magistrature bu dee téeméer la juróom-ñett ñett fukki moom la gaawantu ne mandat de dépôt man loolu laa ne woon du am mandat de dépôt boobu te ni ma ko waxoon laa koy waxaat tey dossier bi du ma dugal kaso man. fan nga ko parce que li ñu wax amul man kenn du ma jaay doole dinaa ci ñëw. Mhm. ma ne justice sénégalaise moo am problème. d'accord. comme justice pénale sénégalaise am na problème nag man dama jël samay résolution bu yàgg Macky Sall toog na huit mois ñemewul nommer un juge loolu kenn mosu koo gis huit mois ñemewul jël ñoom ñeme un juge nommer un boobu mu ngi wut juge bu méngoog li mu bëgg te de préférence na